sant yàlla bu baax di baalu àq ñi nga xamante ne ñoo ñu dénk seen baat ak seen dëkk ndax sang bi tudd na ko sànq njiit buñ la jiitalee am na àq bu dox sa diggante ak askan bi maa ngi profité ci occasion bi baalu àq waa Yoff yëpp ak waa réew mi yëpp sang bi li mu wax nag dafa war a tax wéy politique seetaat seen bopp ndax wax dëgg yàlla coow li coow li li ko waral yëpp mooy ñun ñi yor nguur gi ak ñu mel ni ñun donc tey li war mooy bu ñu weesoo ci lii nag kenn ku nekk tëju sa biiram nekk xoolaat sa bopp seetaat la la war seetaat la nga man la nga mënul nga teggi ko teggi ko sa bopp la nga mën it nga góor góorlu ci pour mën a tontu soxlay askan wi nguur nag sàng bi wax na ko mën nga ci jaamu yàlla am ci aljana loolu it wax dëgg yàlla jullit bu nekk doomu aadama bu ne loolu mooy sa objectif ultime maanaam loolu moo la wàcce ci kaw suuf ndax nga mën a xeex lu dugg du la dugal aljana donc loolu daal laa mën a jàpp ci message sang bi te wax dëgg yàlla juñ ju doy na borom xel wax naa ko sànq ku nekk da nga seetaat sa bopp ku ne xoolaat sa bopp ndax ku wéetit xam sa bopp macha allah